الكلام والأنبياء والرسل منزل الكلام barkeb soxna Aida Saliou jërëjëfati Serigne Béthio jërëjëfati Serigne Béthio Béthio yàlla na fi yàgg te wér yàlla na ko ànd ak buntam yi amiram yi soxna Batoor Saliou ak soxna Adja Saliou mbokki jullit yi mbokki taalibe yi waa réew mi ak waa bitim réew mbokki internautes yi yéen ñiy suivre seen chaîne soxna Aïda Saliou l'officiel noo ngi leen di nuyu di leen nuyu nuyub lislaam di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ni ñu leen ko diggee woon tey jii ñoo ngi dellusiwaat ci émission yi ñuy amal muy en route vers avril no togat tay ak jëm juñu min jëm juñu xam jëm juñu yakam yàkkamti jotayam muy jëwriñ universel Serigne Saliou Samb ñu taggo bu yagul mu tegoon baaraamam foo xam ne tey jii faaw nu tegaat ko fa Serigne Saliou no ngi lay nuyu di la siyaare di la nga nuyu ak wa rew ak wa bitim réew ah, jërëjëf jëwriñ universel Modou Sall ñu ngi lay fay am nuyoo te di la sofalit am nuyoo ahansenil baax yi mina sheytaani fi kulli majlisin wa fil awtaani xibaadati btadaxtu bismillahi wa huwa kafaaniya sawil malaahi wajjahtu kulla alhamdi wa lil maliki rahmani wa shakuri salli wa sallim wal sarmada xalal la si muhammada wa alihi wa sahbihi wal anbiya al muqaddamati rabbiya sarah biha sudura man tahallamu syarhan bihi la tahtarihim sulamu barkab sering tuba noo ngi jafati sering saliwu jari jafat sering Béthio di ñaanal soxna Aida Saliou dëgg sering jëmmi Serigne Béthio ci mu yàgg fi lol tànd ko wér te di ko di ñaanit mu ànd ko yaari buntam yi soxna batur saliwu ak soxna Adja saliwu Thioune di leen siyaare ñoom itam du nuyu nuyu di nuyu top bismillah waaw sëñ Sall kérok bi ñuy taggo mhm. ñi ngi tegoon sunu baram. ci dajé bu reuy bobu mhm. Serigne Sall yu mhm. ak Serigne Béthio. ak na nga nuko ko ak ni nga ko jàngalee ñi ko mësta xam. mu melni dajé ba barkel na lool. amna yit it ak jéxital motax tay tour tuuru Serigne Béthio yi law. ba aduna wërngal képp kenn umpletul Serigne Béthio. te mu ci ko Serigne Sall waxon ne ko aduna sépp dinañ ne Serigne sëñ Saal dajé yoye mujur, yoyé mu jur. Mhm. lan nga ñu ci mëna jangalat mhm. ci digënté Serigne Saliou ak sëñ wa waaw jëf universel ci laaj ba am solo mi nga laajat ndax kat li ni waxtaanee moy dajab Serigne Saliou ak té mhm. loolu la ko jëmmaloon di 17 avril 1946 daja ba la mu jur ci ay ndariñ barkel ga la mu jur ci ay xéewal jur ko ci ay tawfiix mu ñeel adina sepp ay nak nag ko ni di talibi Serigne beccio yi loli motax ken do ko fatte loolu yi mhm. mu doon cant ko sax dak ci bis ba dellusee cant ya sat pek ngir xewal gënu bisba jural motax serigne Sëriñ day wax ni ad nihmatu xéewal mhm. in shukkirat bo ci saxé di sant kharrat xewal ga day sax way wa nammat day dolliku way wayin ko firat neena ko dul sant xewal farrat la nga jot am ci xéwal di lay ba pare wa abbat du ca yem waaye da lay arak sax nag ndax yàlla bañ ku ñàkk sant. ci fatalaa fa sensé mu jàng moom Sëriñ Tuubaa la in shakartum la azidannakum wala in kafartum wa in hasaabi la shadid kon jëmmi sant ak xéewal yàllaa ko digle. Hmm. te yàlla itam day jël ay bis denc ci ay xéewal yoo xam ni day wax ne fàttaliku leen sama bis yooyu. Hmm. bis yooyu li tax mu koy moomalee boppam mooy bis ya da cay feeñal yi fi boppam yoo xam ne day wane kattanam ak man-manam ak sañ-sañam ak yërmandeem mhm. moo tax mu wax ci alxuraan ni wa zakkiruhum bi ayyaamillah waxal wax na yonente bi waxal jullit ñi nanuy fàttaliku bisi yàlla yi bi ayaamillah ayaam mooy jam xum mhm. mooy benn bis mhm. bis mooy boole bëccëg ak guddi moo doon yowmu boo ne ayaam nag def nga ko pluriel muy jam sun borom ne ko wax leen nanuy fàttaliku bisi yalla yi kon du ben bis du ñaar inna fi daaka laayatin li kulli sabbaarin shakuur yàlla denc na ca bir bisam ya ay mandarga ay kiman yu koy tegtale yoo xam ne ña ko mën a xam bari di ko hmm. fàttaliku di ko ca sant mooy cantaako ni ko ni cantaako ni kon ndekete ab sant kat mo a xam liñ ko defal ci bis ak la bis ba jur Abdullah ibn Abbas neena na bis boobu bis yi ne kenn tekk ko fen hmm. nee na bépp bis boo xam ne yàlla may na ci jullit ñi ak mucc ca bis yàlla ni ki waa kër Moussa nam leen musale woon ci Firawna ak loram hmm. waaye bépp bis boo xam ne yàlla may na ci jullit ñi ay xéewali ca bis bis booba bis booba ca bis yàlla ni ki rasulullah sallallahu alayhi wasallam ak feeñal ko xatta sariirun kasara li hmm. ajli xawlin ihtara min nuuri afdali wara rabbi xale yi salimi Sëñ Tuubaa nee na cant yëpp dajale naa ko mu cant yi njëkk yi ak yu mujj yi jeewal ko yàlla mi fi njëkk di fi mujj waaye cant yëpp dëxëñ naa ko ci benn bis rek mooy rabbikul awal bisu mhm. gàmmu ndax nee na bis ba moo jur lépp moo tax nga dégg mu ni sukkanal min rabbihil awal yi bu ko defee nag 17 avril nag loolu la ñu jural ci xéwal yi dul jeex boo ci làmmoon rek day doy waxtaan mhm. waaye xam naa ne tey mën noo jël eh, xam-xam bi mu defal mhm. ndax bu du woon ak dajab Serigne Saliou ak Serigne Béthio du mën a xam ni Serigne Saliou woy Serigne Touba lu nu a xam ni itam Serigne Saliou mii Serigne Touba mooy borom jamono. Mhm. ndax daa bokk ci xéewal yi gën a rëy ci xéewal yi. te sëñ Béthio sëñ Saliou ko ni woon xeeti cant yëpp day sant yàlla ci xéewalu xam-xam benn féetu ko ci kaw. Mhm. ndax ab xam-xam yàlla rek ko mën a joxe. moo xam mooy xam-xam bu jàng ak bundul jàng ndax ñaari xeeti xam-xam moo am. alxuraan neen iqra bismi rabbika lasi xalaq xalaqal insaana min xalaqin iqrax wa rabbukal akramu si waaye xallama bil xalam teg ca xallamal insaana maalam yaxlam foofu la séddalee xam-xam ñaari xaaj xallama bil xalam nee na moom mooy xamle moom yàlla waaye dana ko jaarale ci xalima xam-xam bi jaar ci xalima nag moom la xalima bind mu dooni téere téere yooyu la ñuy jàng professeur di ko jàngale muy jàngale diine di jàngale sariha di jàngale loolu ne niñ koy niñ ko diglee niñ koy defee bu yàqoo niñ koy defaree loolu nag ku la ko gën a jàng rek moo la koy gën a xam moom boobu xam-xam donte loo ca xam sax yàlla waaye jumtukaay jàng ca la koy jaarale mm-hmm. sa nuqrika falaa tansa illa ma sha allah kon lu ko ca sóobutit dis ko ci xam mm-hmm. waaye beneen xam-xam mooy xalamal insaan maalam yaxalam xam-xam boo xam ne moom kenn du ko jàng yàlla mm-hmm. koy dimbalee nit di eh, seen affaire nag jural nañu ñaari xeeti xam-xam yoo xam ne boo doon tàmbali lim jur fa laay tàmbalee ndax xam-xam dala da ko jiituwut te yénte bi neen lu ne xam koo gën réere ko waaye bu dul woon ak dajab Serigne Saliou ak Serigne Béthio xawma ñan waaye mbooloo mii ànd ak Serigne Béthio day bu fekkee ni téeméeri nit leen juróom-ñeent fukk yaa juróom-ñett. ndax kat bari na koo xam ne sax juddoo na ci yoonu murit yaakaar Serigne Touba waaye ba fii may waxee yow Serigne Saliou mooy Serigne Touba moom xamu ko. Mm-hmm. koy dégg rek ñu di ko wax. mën naa am sa dégg amatu ca pexe waaye xolam nangoo ko ndax da ca amatu xam-xam loolu lu ñuy yee nit la. Mm-hmm. waaye itam xam ni it Serigne Saliou mii mooy borom jamono ji nga xam ni lépp lu yàlla jëflante jaamam ñi ci loxoom bii lay jaar waaye lépp loo xam ne jóge ci jaam ñi jëm ci yàlla yi ci bii lay jaar ndax yàlla jamono ji ne benn buntu lay am mhm. te buntu boobu mooy Serigne Touba may jëmmam ja axtaani yallaahu baabahu wala yumaru bil baabi illa bi machiati yi nga xam ne ku ko bëgg a sant foofa nga jaarale sa cant baa sa cant du mat mhm. waaye yàlla itam ku mu yéene nga sant xéewal ya muy lay defal ngir nga sant ci loxoom ba la koy jaarale mhm. moo tax addisu xut si ba xabdi lam yaskur nii isaa lam yaskur man ajraytu nihmati xalaa yadayhi ab jaam lu ma sant mukk ak lu ma bëgg a bëgg sant li fi yeeg santul ka nga xam ni ca moom laa jaarale xéewal yi mu ñëw ci moom hmm. kon daa am koo xam ni ci jamono lépp lu waay di yëg ci yàlla ba war laa jural ak cant war laa jural tawféex ca loxoom ba lay jaar hmm. kooka nag dañ ko du jàng ci benn téere ngi ràññee ko téere yi joxe ay tegtal dañ joxe ay junj waaye xam ni kii la nag ndimbalul yàlla la tawféex yàlla la yoo xam ne yàlla ci dajale ab jaam rek dimbali ko ca mu mën ko xàmmee. 17 hmm. avril nag tawfeex gi mu njëkk defal ci xeetu xam-xam mooy daje Sëriñ Saaliw ak Sëriñ nu jural ñu xam ni kii dajeeg Sëriñ Béthio mooy Sëriñ Tuubaa mi dul faatu mooy Sëriñ Tuubaa mi nga xam ni faaw day na ci jamono teyam junne de gàccal démbam ndax mbir ni nga ko xamee ni nga koy sàkkoo tey jii nii ki nga xam ne dangaa dangaa jàpp ne moom fukk la man booy sàkku si moom sàkku nu koy wut fukk rek ngay ngay def hmm. waaye so jàpp ne mën na témèr boy sakku si ci mom sakku ne kuy wut si témèr nga yor ki nga jàpp ne na junni yit sakku ne kuy wut ci junni nga yor kon ki ki yegni sin salu mi muy mu dajel muy nimbalam day serigne touba mi wut dara mm-hmm. koka pas-pas mi am ak yërmande jëm yi am ak nimbal la mi am du bokk ak ki nga xane agul fofu kon ko la ci ëpp xam-xam mo la ci ëpp tawféex mm-hmm. mo la ci gëna jariñu ndax touba ni won kuma jappé nit dama jëflanté yow ni nit def ak moromam rek mm-hmm. ku ma jàppee sëriñ rek yem ci ma defal la li sëriñ defal ab taalibeem yegg na sax ba ci ne ku ma def boromam ma defal la li nga xam ni ab borom dong nga ko mën a jaamam ndax lu ca nekke yàlla jox na ko cër ba ba mat ko sëkk. moom Tuubaa ndax toogee na lépp te mën na ko ndax moo wutu yàlla ci lépp maddaxoo maddaxoo xaddiimahoo matxan yafuux wa huwa al xalifatu lahu la wax wa huwa rafiq kon kooku moo wutu yenente bi wutu yàlla ci kaw suuf alayhi salaatu wasalaam subhaanahu wa dajee mag sëñ Béthio tawféex gi nga xam ne bi ma doon tàmbali foofu laay tàmbalee mooy dimbali gi mu dimbali waaye seen daje boobu yëgal yëgloo nañu ne ñaar ñi daje kat muy diggante jàmboo bi ak sang bi Serigne Touba la sëñ Béthio dajal mi du jug jamono ndax waxoon nañu du fi jóge mukk te tayam june gàccal na dimb hmm. sëñ Touba nee woon na maa gindi ñi ma jamonoon teel ki saahir waaye na ngeen xam ne fii ba ne wal buftu ba mbooloo mu fi ñëwati mu ne manqué seen bii te maa leen di gindi maa leen di jariñ te forme bi dana soppi ko lii tajabal humra hmm. wajahdi bi as sumar, hinan fa hinan khayru hadin qad hamur loolu seen bi wax tay ah, yalla def na sama dundi gi lu tay la mo dundu gu fi du la hmm. dundi gi day sax dundi gi li fi ak yalla ngi am rek dundi gi day am te yalla du di am na tursi hanil abu khani yallahu li wajhillahi doxna sama digg ak de saxuk yalla gi li li tax ma de dal moy nu tagge yalla ne joge na fi te deug dal fam waaye li fi tàggee gunu yalla ne dem na tay ci fajar. Hmm. ta muy deug rek. Hmm. xam leen ne maa ngi fi mom li fi lu fi jele wut yalla ma fi jele ndax loolu yalla ko def nak la wax nak nag wu ko ndax war na koo mën. Hmm. ndax mom lu mu bëgg dana ko mën yaa deg ko ak àggut ci yenn ja ya it war ngaa toll ci xam ne lu mu bëgg dana ko man rek te yalla nak sit bi sax fi bëgg na ko kon def na ko yaa deg mu ni eh, ni mu gindee ñi ak mom ci kaalaam nga non lay gindee mbolo mu mën a ñëwaat jamono bani wal bufti bi ndax al mawtu inqitaahul amri dee mooy dog mbir yi hmm. waaye wa umóor yi laa laataan xatimu abadan man man nag samay mbir du dog faaw ndax de dama ki dul jaar moo tax kon jamono ju nekk dana fi ne hmm. da mën naa am moo yor waleen melo man hmm. naa am mu tudd na neen waaye loolee du ku ko bëgg a xam rek xam ko ko cant gi njëkk mooy loola xamal loolu 17 avril nag buñ doon tàmbali sunu cant ci moom mooy dimbali gi mu dimbali ba xamal ne sëñ Saliou woy sëñ Tuubaa moom mi ngi fi jógewul te fi jóg sëñ saaliwu mooy sin tubaa mi nga xam ne mooy mottali yéene mooy sëñ tubaa hmm. sëñ becco mooy jumtukaay bi sëñ saaliwu wanee ni sëñ tubaa amul tànk ginnaaw te yam gën a de gàccal dimbam ci jëmmi sëñ becco yit la sëñ saaliwu jëfandikoo jëfinu sëriñ tubaa loolu ñuy tudde ak ceex sëñ tubaa hmm. rek ko mën a def ci góor hmm. sëñ abdulaat danoo waxoon ni sëñ tubaa nee na li may def ci góor nit li may def ci nit ba mbooloo topp ko su ma ko defoon ci garab mbooloo mi dañuy dëkkee garab go ci dut lu fa jug te nee julli ñaar raka sax ma ko gën kon nekkate li ñuy toppee mbooloo mu seigne touba def ci mom du nit ka. Mm-hmm. ndax seigne touba neena bu ko defon ci garab bi dem ci garab ga. kon du nit ka du garab ga mbirum seigne touba mala hmm te seigne touba neena na nak nag jafewu ko ndax mbirama julli ñaar rakka ko gëna a jafe xam nga lu tax mu misal ko julli ñaar hmm seigne touba julli ñaar rakka du ko yom ah, waaw ah, seetlu woo li ñuy tarixal seigne touba yep ci ay da fay julli won rek la fi la jaaroon julli na fi ñaar bi mom simila saala mu ko Kabar ga jaamu yalla la dundam gépp ak jaamu yalla la mm-hmm. ndax seigne touba ne kulli kulliyati li man lahu xibaada am di wa man xaalifani waaye beneen secret ngi ci sin mi nee na fu ma julli ñaar rakkaa fu ne bësal mal façante foofa yal ubbi nag muy ab bunt bu mu sarale ba ca arasam ja di cay yéegal wàllu wi nga xam kon fu mu sëlmale usine bi defar wàllu wi lay daal di doon moom moo tax mu ne wa kullu buqaxatin salaytu fiiha mm. wa baabun min abwaabi sama lu ko tax a jóg yasxadu fiihi awliyaullah loolu la suñu wax pakk bu ma julli rek yàlla ubbi nag mu di buntu ba sar ba aras mu dafay yéegal ay wàlli yoom moo tax sin bi kenn du xam lu mu doon ndax bu fekkee fu mu julli rek fa lay wàlli bi yéege da ngay xam ne kooku kon maqaama mu ne si ko xam xaaban mm. maqaami xam si war baxil kat mm. yi na ne abdun xadimu kon kooku nga xam ne mooy mooy Sëñ Tuubaa kon def mbir moomu muy def ci góor moo ko mën mm-hmm. Sëñ wu nag li tax disar afin ñu war cee sant nun mooy day bis bi mu xamale ne mooy Sëñ Tuubaa mm-hmm. seen bekkal def naa ci yow loolu ñuy wax ak ceex wax ko defal nañ ma maa ngi ñaan Sëñ Tuubaa def ko ci yow yàlla na ne ci yow def naa moom responsabilité la engagement la ci jël. Mhm. kon war na ne mooy Sëñ Tuubaa moo ko doon def. daan ne ko it li ma def ci yow ku dul yàlla sama boroom xam ko Sëñ Tuubaa ci jëm boppam moo daa xool góor ba mu sob ko mu ne ko bis tey tey jii kat ku la gis dem àjjana. bu ko neexee ne ko ngoonu tey comme nañ ko waxoon maam Cheikh Ibrahima Redin bu ko neexee defee ko na neen sëñ Saliou ne sëñ Béthio ku la gis dem àjjana ku la xam dem àjjana loolu benn waxuma la may ga sax ak ne ja ñëwaguma ci waaye day ab xam-xam bu mu firndee la ni mooy Sëñ Tuubaa mhm. ndax loola ku dul Sëñ Tuubaa doo ko mën Sëñ Tuubaa yi moo daan taqale góor ak ngërëmul yàlla ku mos a dajeeg moom ñu naan sëñ beeg mag ña mhm. ngërëmul yàlla nga wut ndax li ko waral mooy dafa wax ni minallaahi moom daa jógee ci yàlla mhm. ilallaahi te ci yàlla la jëm ay na muridullaahi daa woote ana ñi nan ma dem ci yàlla daan na yàlla moom mii a ma woote kenn du ca yegg te ngërëmul yàlla amoo ko ngërëmul yàlla ka tax a yegg mm-hmm. moo tax nga dégg ba waykat ba ne farub baxaa ilin fala nun xad wasal lam yaxlamil wusula min ko naan yegg-yegg waaye xamul lu yegg mm-hmm. ndax yegg bul defe ne daa am fun départ am fun jëm xam ne da nga naan ban dëkk a jëm nga dem garage di laaj oto fa jëm yàlla du mm-hmm. noonu wala koñ bii ban kër la am fu bëgg nu fekk ko Mm. kon loola boo amul ko la ci yóbbu doo mën a dem moo tax nga dégg salli ala babin nahim sa mm. siraatil mustaqim muhammadin xayril anim wa alihi wa salimi dégg sallimtu min al ahdayi turan mahal tija li rabbi wa babullahi lam yakun mutaja kooku faaw nga jaar ca moom ngir dem mm-hmm. sëñ tubaa ni na ngeen xam ne xeeti jaamu yàlla yi yëpp yàllaa ko digle te def ko daam am te yaaba te ku ko def mu fay la waaye nee na bokk te yoon yegg ci yàlla taxut a yegg wa saxa la wax anna awliya alwaasiliin maa wasalu ila ilahi alaalamin bi kasrati al ahmaali kassalaati wa hajji baytillahi wa sakaati wér na ni wàlliwu ya yeggoon ci yàlla yeggewunu ci yàlla ci bari ay jëfi sarexa daana lu mel ni julli ak aj màkka ak asaka ju bari taxutoon na yegg moo da taxoon na yegg mu ne dajeg sëñ matub sëriñ sàmm juróom ci ñoom ñu mm. ko banak bana man xistuli hurmatin wa xulwu himmati wa xusnu xidmatin wa sukkuru nihmati xaamisuha nufuutalil yanal daje ko ko mat ñu wattu ak warmaam mooy jox ko ak am mm-hmm. kaweel seen yitte ca moom sax ki di ko liggéeyal te rafetal liggéeyin wa sax ci di ko sant ci xéewal ya rabbi mm-hmm. amuk dogu ci faaw yegg fa nga jëme baa du ndëpp mm-hmm. ba daje ngërëm daal di yegg moo tax Sëñ Tuubaa daan xëy na bis ni tey am nga ngërëmu yàlla am nga ngërëmu yónni am nga sama ngërëm Sëñ Saaliw ne Sëñ Béthio yegg ci yàlla googu ngay dégg de na nga xam ne weesuwul am ngërëmul Sëriñ Tuubaa kon nag ne ngërëmul Sëriñ Tuubaa rek mooy tax a yegg kon kooku sëñ Tuubaa ku mu ko joxut doo ko mën a am waaye sëñ Saaliw ñëwaat ki sëñ Mbàkke ne ko ku jébbalu ci yow am ngërëmul yàlla kon wane na ne day sëñ Tuubaa mm-hmm. eh, ndax bu dul woon ak sëñ Tuubaa kenn mënut a joxe loolu amut te loolu yëpp sëñ mm-hmm. la yaa ngi kon xam-xam bi ci jiitu ci di seen affaire li ñu ciy sante mooy wóor gim na ne daña noon ak sunu borom borom jamono wóor gim na wóor ne nun day sëñ Tuubaa rëccunu mm-hmm. ah ndax kat ku di murit nga mën a dund ba faatu mu wóor na ni yow sëñ Tuubaa dajewoog moom loolu jaroon na bañ a dund ndax sëñ Tuubaa dong la ñëpp yi wër mm-hmm. ah, ko may ci ñeetaan ngay dëkk bu ma moom ciy nangam mm-hmm. waaye ku dajeeg sëñ am ca xam-xamu xam ni mooy sëñ Tuubaa ma woon te du fi jug mm-hmm. lu lu ca waaye doon am rek boo ko sàkkoo amee nga ko ci baa am ko lu ko raw waaye léegi nag bu fa xam-xam ba nikko doon du mën a ne déedéet ah, loolu nag seen becc moom la ñu njëkk taw fii xale mooy wan daf koo wax mbàkke kat bi ma demee ñëw nga may ñaanal may jàng di raw excès ma ma dem raw ma dem ba yàgg ma ni kii. Hmm. ëpp na kii ëpp na ni ma ko jàppe moo tax ma ne defar sa boo doxin. seen bi mu njëkk a jàngal àddina seen beccoo tax àddina xam ni Sëñ Saaliw wuy Sëriñ Tuubaa hmm. seen beccoo tax àddina xam ni Sëñ dina gàccal na démbam hmm. madda ilaya madda da lii yuxlidu fa taaba ci nasu wa taabal xaladu ak asaalihal la si yu kammilu amal wa am si yun si nii bi yow mi wa bi xat seen beccoo tax ñu dégg ko Sëriñ loolu la ñu njëkkatew fi xale mooy fexe ban gëm Sëriñ Saaliw bëgg Sëriñ Saaliw fexe ba suñ xol yi mu tabbal ki Serigne Saliou di dund sëñ Saliou waaye rek ab xam-xam lal ko bopp ñu xam ne Serigne Saliou mii mooy Serigne Touba ma woon te mooy Serigne Touba tey mooy Serigne Touba faw wutalu fi jug te Serigne Saliou nee na ko xeeti xéewal yëpp xéewal gu ci féete kaw sant ci xam-xam amut ndax xam-xam daa sut lépp kon 17 affaire bu dul woon ak moom ñun dëndul xam sax man waxuma la Serigne Saliou way Serigne Touba de duñ xam sax mën naa am sax dañ xam ne Serigne Touba am na doom bi tudd Serigne Saliou barke Serigne Touba bari na ci mbooloo xam ne bu woon ak 17 affaire bu dul woon duñ xam ni sax laa wax sëñ Saaliw am na doom bi tudd sëñ Tuubaa eh, ndax loolu am na ci ñoo xam ne ay murit lan te réeré woon na loolu de. Mm-hmm. yoo xam ne sax du dugg te yow xam nga lépp. Mm-hmm. rawatina nag gone ak taax yi nga xam ne loolu mën naa am doon doon sëñ. wallaay ndeysaan kon sëñ Béthio tax nu xam ni sëñ Saaliw mii mooy sëñ Tuubaa sëñ Béthio tax nu xam ne nekkati sëñ Tuubaa ma woon du fi jug. Mm-hmm. Sëñ Tuubaa Sëñ Bee ko tax nu xam ne ndekete Sëñ Tuubaa moomee lam doon joxe it ku ko nawoon na woon amee ko na woon baa nu ko raw. Mm-hmm. ndax tey am dina gàccee na dimbam. boobu xeetu xam-xam nag nga xam ne mooy mooy moo lay motiver ci li ngay wut. soo jàkkaarloog moom xam ne jàkkaarloog nga ak waaja. Mm-hmm. soo ko dee siyaare xam ne waaji ngay siyaare si. soo ko dee jëfal xam ne waaji ngay jëfal. soo ko dee liggéeyal xam ne waaji ngay liggéeyal. su la muuñee nga xam ne waaji la muuñ. su la mm-hmm. nga xam ne waaji la gërëm ngay wut ndëgam ngir xam ne bu la bu bëggee ci waa ji bëgg na ci yow nga xam ne loolu lépp li tax nga di ko defee defin woowu di ko topp xam ne waa ji ngay topp xam ne topp gi mooy sa njëriñ tey ëllëg di nuuru ci moom xam ne ci waaje nga nuuru loolu lépp lu ko jiitu mooy xam ne waajee waaje mm-hmm. ki xamul ne waajee waaje du ko defee nii ci waaje tey kon ke fa xam-xam ba tàmbalee ci yi ñuy wax yëpp naan defal nu nangam defal nañu nangam jural nañu nangam jural nañu nangam xam lu ko jiitu mm-hmm. yëg ni mën nañu ko defal yëg ni moo ko moom mm-hmm. yëg ni moo ko yor <laughs> yëg ni sañ na ko. wallaay xam-xam bu waajib lépp. cey kon bu ñu doon fu ñuy tàmbalee dañ naan ñu ngi koy sant ci xamal gi mu xamal Sëñ Saliou. cey bu dul woon mhm. xam Sëñ Saliou ku dul Sëñ Béthio nag xamoo Sëñ Saliou ni mu ko xamee. Mhm. fam ko xamee ak ko xamee ku moom xamoo ko di. moom rek ko ko wanee di moo ko xam. danoo mënoon a xam yooyu yëpp te bu daje bi amutoon ba moom mi ko xam man na koo xamal ban man e jëriñu moo fu nu koy xamee moo tax moo tax lu tax mooy noonu ku nekk war di wax. moo tax liñ njëkk a sant Serigne Béthio mhm. ci Serigne Saliou dajji gi mo dajje mom ci 17 avril moy nimbal lolou mëna dimbali xam xam bo bi nga xamni kenn duko fekk ci ben feggu waaja rek ngay dajjal mu dimbali la def ko ci yow. motax mo ma ne woon bi kasrati riwaya mm-hmm. bal innahu mahdiraya mahadiraaya mahdiraya go gi nak moy sunu njëlbeenu cant. ci ci 17 avril. universel Modou Sall. ah serigne sal leratina de nagn waaw mom wax ji da neex ba bëgguñu ko won sax dok ndax lambo gum lambo ay mana yu bare bare bare bare bare bare japp na ni kep ku la deglu dana doleku ci anam yep xam-xam boobu nga waxit sering sëriñ bi mu ak serigne saliw noné mu munu jangalé ndax sering saliw xamal nañu ne sen daje ñom ñaar du fii waaye des ko mandargal uhuh. eh, ci jangalé wax nga ko léegi ba mu demee ba am xam-xam ci diggam ak Serigne Saliou Serigne Saliou sol ko cant ki mhm. mu dajale ay bokkam ak dëkkandoom na mu ñu ko jàngale mhm. fekk Serigne Saliou daaray got mhm. te ñu gis ne ak cant yàlla moo ko moom alhamdu wa shukuru ma an lillahi xeeti cant yi am yëpp dañ ne yàlla moo ko moom ba noppi sunu borom moom mi moom cant gi diggee ci cant déeli ci wax nga ko ci di di nga di ci dikk ci alquran waaw na mu ko waxee ak na mu demee. Mhm. waaw sëñ Béthio jël cant gi moom jooyal ko Serigne mhm. ndool leen loole yàlla dëli dëli ci cant ñu gis sëñ ndool leen loole di ko dal. Mhm. ndax fa mu tàmbalee cant gi. ci juróom-ñaari kilos yi ndawal. léeg nga dégg ñu ne nag woom njëkk jënd laata mu koy jënd la mu ca daj. ak nangam ak nangam te léegi mu mel ni mooy borom nag yi. wallaahi wallaahi mooy borom gëléem yi. wallaahi mooy borom xar yeeg ganaar yi. wallaahi wallaahi waaw loolu buñ ci yemoon rek ndolleen la. Mm-hmm. ba juróom-ñaari kilos yi ndawal ku ne xam na ne mbooloo ma koy lekk du bari. déedéet tey jii bu bu bu reyee géttu nag. Mm-hmm. bu ñu xëyee fa fekk dara. wallaahi kon mbooloo mi bari na. Mm-hmm. waaw sëñ Sall loolu noo noo ko jàngatee. Euh, jërëjëf euh, yow de li ngay daal sax dañu ko gën a xam waaye <coughs> mooy xeetu xam-xam bi naan wax. loo gis xam-xam ko lal. alxuraan day wax ni yarfahillahu lazina amanu minkum hmm. wallazina uutul xilma darajaat wala maa tax bu doon xabiir nee na nee na mbir moo gis hmm. ña ca am ngëm ñoo ca kaw waaye boo dajalee ña ca gëm ña ca am xam-xam ñoo ca kaw ah ndax ña ko gëm danañ ci nërëm nërëm yi waaye ña ca boole xam nag dañ koy defee defin ba mu bëgg moo tax cant gi cant gi limi muy mhm. rëy rëy alxuraan di ko jàngale di ko soññee fu ne yaa min tayyibati ma rasaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun mhm. gis nga fa kullu rasaqakum la halalan tayyiba washkuru ni'matallah in kuntum iyyahu ta'budun la in shakartum la sidannakum nga xam noné nu na soññee ko soññee na ko ne ak cant mhm. waye loko bëgg bëgg def te xamoo nu koy no koy loolu baax na waaye àggagu leen ci <laughs> ay yonent Seydina Daawuda ak Suleymaan <laughs> waaw waaw dañoo mujj mun leen ihmalu ala daawuda sukkaran te bi mu naan ihmaloo kat fekk na lu ne ñu ngi koy def ci effort pour jubloo sant rek tey na waxaala alhamdulilahi la ci faddalana ala kasirin min ibadihi almuminin moo jiitu ihmalu ala daawuda sukkaran loolu lañ ko jéem waaye daay mel ne ni mu ko bëgg a waxe àgguñ ca day dem sax ba bu dara amee mu ne haasa min fadli rabbi li yabluwani ya askuru am hmm. akfuru man de lii lu sama borom la rek bam andi bam andi lo jinne je ses ba ci xef ak hmm. mu andi ko mu ne li de ci lu sama borom la bok waye wóor na damay nattooti ba xam dina ko santam dama koy weddi kon ndaka jek xol bi cant yalla rek mo ci nek wa lu mujjee li tax nga xam ne cant ku ko xamul do ko man hmm. mooy waxam ja rabbi hmm. aw sihniya an nashkura nihmataka allati anhamta alayya wa ala walidiyya waa wa an naxmala saalihan tardihu wa adxilni bi rahmatika fi barika saalimin sa saalihin yow sama borom hmm. maa ngi lay ñaan nga sama sax nga xirtal ma nga suub ma ci ma man laa sant ki sa xéewal yi santaale xéewal yi nga defal sama jur wi ay waay ki sa ma ne tàbbal ma ki sa jàmm ñu baax ñi nga xam ne ndekare mi ngi sàkku ndimbal ci yàlla ngir sant ko kon ko yàlla dimbaliwu ci cant doo ko man sëñ hmm. sëriñ nag sëriñ mi xam ak cant xam luy ak cant xam nunu war a sante moo ko sol cant gi def ko ci moom mooy nañ ko waxe hmm. Karak bim mu dare god got jooju nga wax. Mhm. indi juróom-ñaari kilo yi ndawalam ya tok ko ànd ak tam gaag lenn ci taalibeem yi ca naaj wu tàng wa dik suuf sa naaj wu wa tax gone yi jigéen yi ak xale yi di wallax wallaxi ndax euh, tànki neen yi ak suuf su tàng sa mhm. seen bekk nee tang ro woowu sax amatul léegi mhm. sëñ Saliou ngi jàkkaarloog ñoom waaye yërmande ja tax mu mel ku fas kanam ga suppi ko ne ko seen nga def ci jublu ngeen gone yi ndaw yi ak goni yi jigéen yi ni ñu wëllëx wëllëxee ci kaw naaj wi seen bekk ne ma ko gis nga fa ne ma tontu ko loolu nee na mu daal di muñ daal di biiral kanam nga hmm, yàlla bég na. Mhm. yonente bi bég na Serigne Touba bég na. sin becco xanaa xamoon ne xeeti jaamu yàlla yëpp ak cant ci féete kaw gis nga maa ngi ko koy wax information bi ñëw na. Mhm. sin bekk ne ma ne ko nga ni mbàkke mu ne ma xeeti jaamu yàlla yëpp ak cant ci féete kaw. mu daal di andi adis xutsi ba ko loolu day dugal adis xutsi kon mhm. dafa sukuru xibadatun minal xibadaati akramuha wa ashaduha ak cant ak jaamu yàlla la gu bokk ci xeeti jaamu yàlla yàllaay wax ci laminu yonente bi mm-hmm. waaye moo ci a tedd afaala tafdil la waaye lam ko tëjee moo lay mm-hmm. xamal ba ci xam-xam ñëw du sotti mm-hmm. mooy moo ci gën a jafe ci gis nga ni mu ci gënee tedd ni la gën a jafe jafe gaa tax man sin saal ko xeeti jaamu yàlla yëpp rek ak cant ci fete kaw waaye sunu waa ji mooy njàccaar mooy dimbalaa kon seen beccu seen beccu rek ka mat a sant seen beccu moo baax moo nu dimbali bu yamoon foofu fa histoire bay yem ñu nekkati fa di jéem di di di totone ak di débrouiller mën naa mu baax ma naa du baax. Mm-hmm. waaye mu xam ne loolu nag jëlee ko fi jot na mu ni ko diis na ko mbàkke luy ak cant. dégg nga ndimbal laa ko. <laughs> moom jëf na cant gi ban na ko moo féete kaw. xam na ni kon lim def nangu nan ko. waaw ndax lim def nee nañ ko ci yàlla bég na ci yonent bi bég na Sëñ Tuubaa bég na ci. ba ne mm-hmm. moom lu yàlla bég yonent bi bég Sëñ Tuubaa ko baax. Mm-hmm. Sëñ bi ko am na lu ma ci wax loo xam ne des ko mënut a wax ci ci internet ndax nee na ma daa war a liggéeyam moom Sëñ Saaliw daal di muuñ bég ba noppi mhm. daani ci biir mbégam mu confirmé ci mbégum yàlla mhm. mbégum yónente bi am na yu ma ci yoo xam mëne su ko wax sama laaj laa <laughs> yow tontu nga sama laaj yooyu di yeneen waaw neen ci mbégam la confirmé ñetti maa la ko wax nangam nangam yaa ngi dégg mhm. waaye dama ni seen becc bëgg noo dimbale ci def ndax moom li mu def xam na ne baax na nangu nañ ko yàlla bég na ci yónente bi bég na ci Sëñ Tuubaa bég na ci wax nañ ko ne ko moo féete ko ci jëf ji bu fa yamoon yëf ya yam fa waaye xoola bëgg a dimbali jamono tax mu ne ko moo mbàkke luy ak cant bu ko laajutoon kon du ko ko wax. yàlla daa maandu. daa mun ko hum sant bernde dégg nga bernde rendi tour de ret mm-hmm. togg ko ñam bu bari ta neex. Mm-hmm. da koy seddale doo ci am xeej ak seen xeej ji nee na ma mooy di wut ko yàlla la naan ñu ñee xeej yi. Mm-hmm. seen mooy ko ñoo xam dañoo sori. nga naan ñee moom matugu ko ci ñoom nee ak cant ñëpp ci yem. daa ne ko dangay ngay bëgg yow mi koy def. ba nopp jubloo bëggal ñi ngi koy jox nekkate bu boo boo defoon loolu ba pare mer sa cant du baax. nekk da nga wara a ndax ndax tay deug deug jaamu yalla da ngi deg te yent bi moo ne woon li gën ci jëf yi moy tàbbal ci mbégte ci xolub julit da deggal da ngay bég ba nopi jublo begal ñing koy jox daan ne ko so noppé nak nga taxaw ci mboola ma wax li la yalla defal ba tax nga di sant ndax at tahaddusu bi llahi shukrun yent bi moo ne waxtaane xiiwale ak cant la wa tarkuha kufrun ragal ciap ak ragal waxi nit ñi ba bañ ko wax neena wedd yalla la naw ama bi nihmatab ko hanis kenn ku ne nag lu toll la may booy wax moom ngay wax. waaw boo gisee seen mbéj bi day wax mu ëlëm ñëpp mooy ak mayam la kenn amut mais <laughs> ngi dégg wax dëgg waaye kin jox ngërëmul yàlla mu ma jox. waaw seen wax na bu mu loomaate ba nga ko na di. <laughs> la ne kam sang may rek wax. wala da wax daa ëpp <laughs> lim koy wax li rëy rëy it bañoon ko wax a gën a rëy ndax bañoon ko wax ak wedd lay tudd ci te yow am mer rek la lay jural te mën naa am du garaaw yaa ngi dégg. tey yooyu man ak yombul ku complexe mënoo ko de. déedéet barke Serigne Touba. dëgg xoolal mu leeral ko ko gis nga loolu mu ko jaa la wax nag. ba noppi nag suub ko ci mag mbooloom ci lan xamee ni kon nii la ñuy defee kayfiyee cant gi muy berndee rek. Uhuh. mooy nii nga xam ne noonu la ko seen mbéjo àdduna sépp xamee. mu dem ba gétt fu mu ko rayee wax nga ko du taxaw. ay uhuh. nangami junni nag ak nangami ay gileem yi kenn mëntu ko wàññi a ngi dégg. Uhuh. effectivement ni ko ko jàngale noonu la Sëriñ Tuubaa defe woon cantam nga ci màggal gi diglee ko nii. nga ni xam nga ni. Mm-hmm. keroog am xar la rayloo seen malaay bu so. Mm-hmm. loo ko ko ay cër. Mm-hmm. ne nag na njëkkee ci kër gi moo tax cant ci sa bopp ngay commencé amul xeet ak seen. benn cër bi da koo loo soxna aminte bu sox way jur Sëriñ Abdu Xaadir ñu war koo defar ci kër gi. moo tax ñame cant da nga ciy mën a xéwlu yow doog koo mën a joxe ak cant rek a silvissé yaa ngi dégg. bi ca des mu ne ko yobul fi yobul fi amul xajj ak seen daan ne ko nak su ngeen noppé ngeen wote mu daal di wote wo féré yi ñoom bis bi sa yu dikkatee. hmm kep ko xamni sama mbég sa mbég la mbég ma ñew na. Hmm. kenn ta sante bego hmm imam qasali ne da ngay bég ci li la defal ba noppi doga a sante na nit ki lim am ba bekk ya sante bu ko neexut num ci sante leela lii dang ci sante dedet kan leela neex rek ngay mën sante di. yaa la ko wax yaa ngi dégg ndax leela la muñ nga ci def di. leela neex ci ngay bekk bu man ci sante mu ne ko bu bis bi saa yu képp koo xam ne sama mbég sa mbég la li ko tàmbalee ci ginaar ba ci gileem mooy bay ka kaafé ni mhm. lu ci waay man nama ma ko ci defal jublu ci lan sant le ma ci yàlla kon nag loolaay cant sax foofu la laa xamee man mii ci sama déggin ne la ci tabaski sax ci maam Ibrahima du ak cant. Mhm. déedéet ndigal la mhm. ndax daa bokk ci sarti sant li ngay def dañ ciy bég te Ibrahima bi ko reyloo doom ji day jëfi ndigalul yàlla li nangu na ko. Mhm. doom ji nangu na nu ray ko mu jëfi ndigalu yàlla li. Mhm. a ngi dégg waaye rey gi gënalul Ibrahima. Mhm. moo tax doom ji tamit jëfi ndigalu yàlla yi moo tax waaye dee gi gënalu ko moo tax mu ne ko sa tajji du niya insha allahu mina sabirin wax ko mina shakirin de. defal li la yàlla digal yaabati ifxal maa tumaru. da nga ma fekk ma a ca muñkat ya mooy lu métti métti dinaa ko muñ ndax ni yàlla digle rek laay def. Ibrahima it bi mu koy rey li tax nga xam ne gënalu ko daa takk bëti. yaa ngi def doom yi ngir bañ na. njurel doxat fi ba mañ ko def li tax ngay xamni gënal ko ba tey mooy bi mu rendee ba ba defee ne rey doom ji nek ne ib jibril andi xarmi wa fadaynahu bi mhm. wa tarakna alayhi fi laaxiri ni ko alxuraan nettali mhm. bi mu xoolee gis né doom ji déwul te xar mi na ndigal li dani alhamdulillahi rabbil alamin <laughs> ci lay doog ne rabbil alamin xar rabbil alamin kon alhamdulillahi rabbil alamin loo ca déggee alhamdulilah rabbi xaana bi ma jëfee ndigalu te ñakuma sama doom <laughs> doom ji ne rabbil alamin xaana bi ma ndigal yalla te deewuma ci ak cant nag li ngay def dalay neex te da ngay bëgg moom mm. moo tax sëñ Tuubaa jëf cant gi moom la yàlla dogal sëñ Saaliw ko jàngal seen becc suub ko ci def ko cantaakoon bi suñ tawfeex mooy dañu ci yóbbaale géew mm. moo loolu buñ ko xamutoon buñ ci tàbbalutoon buñ nu ko def la wutoon buñ nu ci boole wutoon fuñ cay bokke waaw sin becc ba daje wutoon ak sëñ Saaliw dix-sept avril moo lii nu muy amee déedéet moo tax dix-sept avril lay bis bi mooy bés bi cay sëñ Saaliw ah indeeti nga tomb yu peq waaw yeesalaat nga na ci ci disponibilité bi ndax jotaay xam-xam kat daa yombul te lu mu xat xat xat ak lu mu gàtt gàtt gàtt njëriñ rek la noo ci ciy santaat bu baax waaw mel ni cant googu kat fi ñuy tëjee. Mm-hmm. Eh, di la bàyyi nga tàggatuwaale ci ak mbooloo mi. Mm-hmm. mooy sëñ Béthio daa teg lépp ci loxol soxna Aïda Saliou. Mm-hmm. muy rendi bernde. wala bernde rindi. togg ñam yu neex te bari. di ko séddale doo ci am xeej ak seen. waaw soxna Aïda Saliou di ko dëralee ci réew mi mhm. waxuma la ci penc mi di mat na salaam mhm. dëkk bi mhm. waaye ci réew mi laa wax te nga am ci xam-xam am ci tànk jéego yoo ciy dox waaw loolu daal mu yéem ñu lool ñu bëggoon nga tàggatoo foofu ak mbooloo bi waaw loolu li wane mooy xam-xam bi doon wax sëñ Saliou li mu doon dafa dul jug xam-xam xamal nu ne nu loola mën naa changer forme mën naa changer tur waaye mbirum yàlla la te mbir moom yi li fii ak mbirum Sëñ Tuubaa ngi am rek day am. Mhm. Sëñ def ko ci seen mbéccu seen mbéccu la soob mu def ko ci Soxna Aida Saliou dalaa wax naan du ma mujj bi muy réer. Mhm. waaye mujj na ko waaye réeru de. te kim ko joxe réerulu ko. seen mbéccu ku ko tudd tudd cant gi. Mhm. mooy kon bu mag bi. ak cant mooy li ñëpp a xamee ki seen mbéccu. cant goo gii nag. dafa wax ne tey jii ak sama ginnaaw liggéey bii nga xam ne moom la ma sëñ Saliou jox ma ànd ko yéen moom mi laa ci wóolu moom Soxna Aida Saliou tey jii ak sama ginnaaw teg ko ci loxoom. Mm-hmm. Soxna nag doon koo xam ne cant gii bi mu koy dirigé di ko jiite di ko jëf di ko ànd ak mbooloo mi ci kanamu Sëñ Béthio la. Mm-hmm. loolu du tey. addina mm-hmm. tey lañ ko xam. waaye yéen ñii ak ñun ne ci kuréel bi xam na ni at yu mujj yi yëpp liggéey bi moo ko jiite. buñ musaana dajale jëf yi ba mat ci loxoom la ko sëñ bi koy teg. mooy dem Mali di dem Mauritanie di jëndi nag yi di jëndi gileem yi xar yi moo koy jënd ba mu dikk bu dikkee yi ci loxoom la koy bàyyi mooy mooy mooy def ngooñ di xontu ba ca bis ba. Mm-hmm. organisation bi dara du ci génn loxoom ba cant gi sont kon moom biñ ko ko jàngalee man loo ko ko jëfloo ko ko dadul tey. loolu seen becc ko def. Mm-hmm. maa ngi fàttali ko man mii rek am na bi seen becc ne ma togg di joxe day mooy yoon wa te sona Aida dog na yoon wa daan ma moo tax raw na. waaw ne ma yoon wi dama Sëriñ Saaliwu tegoon moom daa jug rek daa daanaka moom dog na yoon wa raw na kon moom naka jëkk doon ab cantaakoon bu sax ci di sant di bernde moom mbir ma. Hmm. loolu Sëriñ Béthio ko ci sóob moo ko ci sóob moo ko jàngal moo ko man loo gan sax bu ko mosaana bett te waaju ko hmm. lu gan ya bari bari xelam ci moom lay dem. Hmm. danaan kar woo ko téléphone ah damaa amee gan fekk na sa sa saa su ne du benn du ñaar du ñett fi nga xam ne sa kii maa nag Sëriñ Sëriñ Saaliwu saa yu ko defee rek mu ne ko waajuloon naa fi maa ngi ñëw siyaare si ko. bu dikkee day daal di te te nu gan ña toll loola day ne mën a benn ci nga xam ne sa communication bi soxna Aida ak seen béykat xam naa ne leneen la loo xam ne sa ëpp na lii nit ñi di wax. ak dégg euh, moom li nga gën a firndeel mooy. cant gi ñuy waxtaane mooy di si rafet mm-hmm. dajab sëriñ Saliou ak seen beccu seen beccu neen mooy cantam gi féete kaw ci cant yi ndax mooy nday cant gi ndax mooy mm-hmm. cosaan li bis bi sin be ci ku papa kudul bopam nak moko mas di jiite di taxaw uhuh mhm. ben yon lako mos wuté moy 2019 bu mujj bi mhm. ba bam démé ba am ngantul docteur ya ci mën ñew te sin salu nako won woon loolu docteur wax na ko jëfé mhm. na docteur am pat ci loxom lako yalla tek way ak wër nak yalla ko yor nak al mubri il amraade wal asqam mom yëfi yaa ngi deg xam munsir dana wadai, siri wa munsir siri wadai waddawaay loolu yalla kon sifaw moy ak wéral yalla ko mom waaye pat nak mom docteur ne ko musa ak bët ba ak yalla xam ngeen ko bim mu ba am gantal ñew dani lepp luma ci daan def ak fa ma daan tok soxna Aida Saliou moo koy jiite ku ne xamna ni ne cantu bi sat afil gu mujj gii moo yor ko tok fa bekk daan tok organiser ko num ko daan organiser way bekk di sat bu ko dàq mhm. ta loolu nun ñëpp maas nañ ko xam mhm. kon mom naka jek kon loolu da ci yag la bëgg wax bam koy def yor ko sin bisin binewar, fi way bi sin bi ne war mhm. ta waxal na waxam ja su ma war mom ñi ñu wara gis bam nu ban gis ko day nun day sant nañ sin bekk ci gis gin ko gis ndax téye na nag liggéey bi téyin woo xam ni nun ñëpp amee nañ ci ak cant Serigne Béthio. Mhm. ndax Serigne Béthio cantam gii bu ko bàyyi woon fukk sonaay da téeméer la ko yóbbu. Mhm. waaye organisation bi jëf ji cofeel gi tawfeex gi na wax nga ko cant gi léegi duutu sax ab dëkk réew mépp la daj. Mhm. àddina la sax ndax fi mu toll nii foo dem ci dëkk yi. dafa ne di waa këram. dañuy toggee bernde. bis ñëwee ak cant gi. waaye chaque ajjuma. réew mii dëkk boo tudd camion yaa nga fa. sëf cant gi di wàcc bernde yi nit ñi di xewlu te ñam koy jox li tax xam ne amul xeej seen xamu sax ña ëpp man mii xam naa ci lu bari. Mhm. Euh, ña ci ëpp mosuñu koo gis mosu leen a gis mu leen dégg téléphone mosuñu ko dégg téléphone buñ ko romboon tey jii bu buñ ko nuyoo mënu leen a fay. waaye da koo deful ngir jëmm da koy def ngir jëmmi siñ bejo mekk koy def loo ndax Sëriñ Saliou ko waxoon ne ko amul xeej ak seen. dégg mhm. tey dégle te danga koy joxe kon cant gi fu mu sa rek soxna Aida weesu dina ko fa te nag loolu mooy mandargal nii nag looloo moo yor cant gi. Mhm. ndax cant yokkute nag. Mhm. waa bu yokkute amul cant amul. waaw bu fekkoon ne fi ñu ko diir jëmunu ko fa. Mhm. duñ mën a yokk li tax nga xam ne Serigne Saliou mii fi ko sant fi la. mooy li yàlla diggee ci cant dañ koo amee sant gi ñu koy sant. waaye Serigne tax ngay xam ne mooy Soxna Aida Saliou mooy fu mu tegoon cant ga rek bu yokkute amutoon rek cant gi nekku fa. waaye tey jii la gën a yokk tey la gën a gaaw tey la gën a neex te waxoon na ko mm-hmm. yaa gën a gaaw la yaa gën a neex waaye moom àdduna xam nañ ko wallaay ndax fii fii mu yàggale cant gi ba léegi àjjuma mu daj réew mi mu mm-hmm. ne ki saaxir day seen fecc àggutoon foofu nit ñi naan paas di ñëw ba Mermoz di xewli si taximaan yi yëpp mhm. ngir reer si mhm. léegi nag aajo wutul paas ak jël oto toogal sa dëkk rek camion ba mooy wàcc bek sa buntu kër mhm. wàcceel la ko ni la soxna Aida agsi bu baax ba say mbokk te doo ko gis doo la gis yëf yi yokku na wallaahi yàlla na fi te na waaw li ñuy wax ne lu neex du doy waaw dañuy dem delsiwaat waaw noog yow fii ba nu yegg ca bés ba ba bu nu weesoo bés ba di wéyle waaw ndax yow sa jotaay duñ ci doyal mukk waaw ah, waaw dañuy ñaan soxna Aida Saliou mu yàgg fi loolu te wér sëriñ Béthio sàmmal la boppam téyel la boppam yokk xam-xam bi làq la fu yàq yeggul waaye noo ngi siyaare soxna Batoor Saliou ak soxna Adja Saliou ñaari buntam yu tedd yooyu yi nga xam ni mm-hmm. xam naa ne dinañ ñëw ci ñoom bis waaw waaw ndax ndimbal li nu doon. waaw bokk kii maanaam seen mbéy yi féete kaw. Mm. ci lim def ci kaw suuf. tey te dafa war a am jotaayam spécial fii. wallaahi ndeysaan. Ah, kon noo ngi leen di siyaarewaat bu baax. Mm. tey ñaan nu yàgg fi te wér. Mm. waaye kat tey duñu dem nag te siyaaroon sunu techniciens yu baax yii. wallaahi wallaahi xam ne foo leen woowee. Mm-hmm. nu yegg si. wallaahi muy cellule communication soxna Aïda Saliou. wallaahi wallaahi muy ñii ci réew mi. ak it ñi ci bitim réew. wallaahi ñoo xam ne kenn du leen gis. waaye soxna Mame Boussa Dia. waaye ak jur yi weesal maa war ak ñi ko àndee ñëpp ak ñi ko àndee ñëpp. waaw ah, waaw université Serigne Khadim Fall. waaw mm-hmm. ah, waaye Matar mii di technicien bi. Ah, ak cuuna wallaahi ba ci laay dem pro. wallaahi wallaahi nga xam ne naa ko yow moom. Mm-hmm. communication point comme nga doo communication doo communicateur traditionnel grand communicateur <laughs> waaw grand communicateur moderne mooy mooy yi mm-hmm. kon noo ngi ñaan soxna Aida mu yàgg fi te wér eh, wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa taala wa barakatuh 14 février bi bésu cofeel baa ngi bés bi tax fu tollu saxoo naa la jaaraw la kër bés bi tollu saxoo naa la